buma len euh, jangale communiquer wu bëss bi si li ñu am ci mbass bi ba paré dana jox kaddu gi ministre bi xamantene ne yor enseignement supérieur ak lepp lu jëm ci jang bu mag bi muy professeur Cheikh Omar An. pour mu waxtan ak yeen si li ñu nar ci walu université yi si contexte mbass bi tay ji muy telata ñaar fukki fan ak si benn si weeru mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot résultat test yi ñu doon def ñu mën a ci juróomi téeméer ak juróom-benn fukki benn test yi ñu def ak yu positif ci fanweer ak ñaar fukk ak juróom-ñett moo nekk ay cas contact yu ñu doon suivre ci suñu service ñett ndëkk moo ci nekk ay cas communautaire ci ñett yooyu benn bi Castor la nekk ñaari yi ñu jàpp itam ne ci bésu tey bi juróom fukki patient yuñ hospitalisé woon wér nañu bésu tey bi ci suñu service de réanimation yi ñu jàpp ne fukk ak juróom ñetti grave ñoom lañ fay suivre yeneen patients yi nekk nag ñu leen di faj ci hôpitaux yi ñu jàpp ne ñu ngi yëg tànn ba mbir mi commencé ak léegi lu ñu mën a jàpp mooy ñetti junni ak téeméer ak juróom benn fukki cas moom la Sénégal déclaré ci xayma boobu junni ak juróomi témèr ak juróom benn fukk ak juróom wér nañ si fanweer ak juróom benn génn si àdduna bon dëkk tey ñi ñuy topp di leen faj toll nañ si junni ak juróomi témèr ak juróom fukk ak juróom ñeent ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi demandé population yi ñu topp bu baax si ndigal yi pour que ñu mën fi génn feebar bi si voulons remercier Didier jox nos collègue monsieur le ministre Cheikh Omar Anne ministre de l'enseignement supérieur de la recherche